di nga fay ay salaire mm-hmm. di nga mun a tabax ay yoon mm-hmm. di nga mun a defar ay hôpitaux ak leneen ak leneen mais économie bu soox munoo ci def dara mm-hmm. yor sa avion di wër ci àdduna bi di yelwaat rek réew buy bàkku ci lebal nañ ma xaalis yeneen réew yi suñu lebee xaalis dañ koy nëbb kan mooy dem banque ñu lebal la xaalis nga ñëw taxaw ci koñ bi yëpp lebal nañ ma xaalis réew li muy bàkkoo mooy sa capacité à produire par lui-même moo tax suñu demee ba naan lebal nañ ñu parce que suñu signature moo baax te yow bi Covid amee yaa njëkk a yooxu ne nañ ma effacer sama sama bor ndax sama signature baaxul réew muy bàkkoo lool rek mooy réew mu suuf la moo tax ma apprécier waxtaan bi ñu fi am waxtaan nañu ci yu xóot a xóot échanger suñuy gis-gis ci lan moo war a doon priorité réew mi ak naka la ñuy def. en tout bu ñu yàlla dénkoon mun na doon moom mun na doon man mun na doon keneen mm-hmm. mais naka la war a def ba jëlee réew mi ci fi mu ne mm-hmm. et ci lu gaaw a gaaw ñu ko feneen ba xale yi dootoo ñoo taal pari foot parce que kenn ku ne am na sa xëy loolu mooy waxtaan gi muy waxtaan bu ma apprécier aussi débat boobu nag ni mu ko waxee euh, bien commun la war a doon mooy dañu war a fexe mm-hmm. ñu ci woo Sénégal yëpp nag ndax lii ñuy dugal nii yëpp. àdduna sax dañuy reetaan réew moo xam ne li mun a taal réew ma li mën a focaliser débat yépp du lan mooy avancé réew mi waaye ay débat personnel loolu ñun ñëpp dañ ko war a bañ léegi le seul compte qu'on doit demander à nos gouvernants mooy gannaaw fal nañ leen jox leen réew mi jox leen budget suñu impôt lañ fay dugal xaalis bi Macky moomu ko keneen moom ku fi nekk rek da ngay fay lépp boo ko yëgi boo ko yëgul ndax ku fi jëndi woon carte euh, crédit 1000 francs sax 18 pour cent TVA mu ngi ci biir donc suñu xaalis boobu ñu ko jox muy suñu budget daan koy tabbal ay ndaw muy administration ñi nekk ci lempo ñi ne ci douane ñi ne ci trésor ñi ne ci agriculture ñi ne ci santé ñu jël loolu lépp teg teg ci loxoom ne ko résultat la bëgg yemul foofu ñu ne ko jox nañ ne suñu sañ sañ nga war a mën a leb suñu tuur ñun ñoo koy fay ñun ak suñuy sët wutal nañ la sax avion parce que bëgguñu ngay rang bëgguñu ngay jël car rapide dañ la jutal avion boo xam ne saa su la neexee nga ne waa ji préparé avion maa ngi ñëw damay dem Paris booy génn ñu ne ñépp nañu taxaw yow rek nga sañ a romb xam nga loolu ku la ko jox deselu la dara kon lañ la laaj mooy résultat laaj ñu la nga xëy su ba ngoon jot di xool naka laay def ba tëj buggaan naka laay def ba élection man doo ngay dem waaye nooy def ba ndaw ñi liggéey ku feebar faju nit ñi am école yu baax tali yu baax courant bi jaar yoon ndox mi jaar yoon te bañ a seer loolu mu war a doon désormais le débat au Sénégal bu ñu nangooti ku ñu divertir ci ay débat secondaire yoo xam ne diw dàq nañ ko ci postam diw euh, euh, faxasalu na barki démb fait divers li ñuy wax fait divers te soo seetee même ci suñu euh, traitement médiatique bi sax fait divers te information économique toujours c'est au second plan kon loolu ñu ci woo Sénégalais yépp parce que nit mun na jàmbat wopp waaye xamul lan moo tax wopp bi am bëri na ndaw wala mag wala jigéen buy dund ay situation difficile bis bu ne mu jàmbat ko bis bu ne mi ngi woo fu nekk pour ñu dimbale ko waaye xamul lan moo waral wopp bi wopp bi nag yorin gu ñaaw yorin goo xam ne du intere Sénégal lañ jiital waaye intérêt bitim réew d'abord rusit bi ci rusit ñoom ñu seddoo ko ñoom ak seen njaboot moo tax ki waroon jot fukk jot benn ba tax mënul faj ay soxlaam te lool bis bu ne ñu wax ko te démontré nañ ko ci li ñuy wax ak li ñuy bind ci téere moo tax visite bi am solo ndax euh, waxtaan yu mel noonu ñun moo ñu taxoon dugg ci politique wax dëgg yàlla dugguñu woon ci politique pour ay teesanteeg ay xasante su bàggoon boo seetee seen wax yépp nag saaga xaste tuumal nit wax lu dul dëgg tey ñi askan bu génn ne d'accord maag li am nga ne askan boobu yépp ay terroriste lañ loolu ku ñu jiital ci réew war na koo def askan yëpp génn bëri nañu ne ci salle bi génnoon nañu nee nañ yéen ñëpp ay terroristes ngeen ay puissance occulte c'est-à-dire ay jinne xam na wala xaw ma lan ñoo leen nekkoon seen gannaaw ay waxu dof yoo xam ne ngeen jégal ma ci wax ji nag waxu daanu saret yoo xam ne moo tax xojaa def na ci bu ma neex a neex mais loolu nit ku ñu diital ci réew war nga wax loolu France am na ay manifestation gilets jaunes tey Allemagne am na ñuy manifester ne doyal nañu ci euh, ci état d'urgence beeg ci kii bi restriction yi mais est-ce que Angela Merkel sañ naa taxaw ne ñii ay terroristes lañu wala ay puissance occulte ñoo nekk seen gannaaw ñàkk weeg Sénégalais yi weesuwul loolu weesuwul loolu mais il faut que ñu góorgóorlu ñun ñëpp ba bu ñu divertir Sénégal mi ngi ci guuta mi ngi ci ab kan goo xam ne mm-hmm. li ko ci war a génne du lu yomb te nag doon Macky Sall ak ñi mu ku ñu jox réew juróomi at ak ñett defoo fi tous nit mun a ne wàññi na coono Sénégalais yi xaar ba nit ñi jóg génn nga naan maa ngi def trois cent milliards pour la jeunesse ak nangam nangam ana li ñu waxoon fii ci DER bi te nag ndax bi dafa jeex ndax dañoo xaar ba élection jot ñu ñëw ne DER jàpp jeunes yu bëri jox leen moitié neen bu élection bi passé ma jox la moitié bi des ana DER boobu lan la fi réglé ana yeneen programme jeunesse yu fi dul jeex kenn gisul lekkukaayu xaalis dong nag kooku mënatul doon la solution du Sénégal du moom di ñi mu àndal ndax gis-gis bi leerul pas-pas bi setul yéene gi baaxul la des mooy encadré leen ñetti at yi ñu jëlee leen fi daal di teg une équipe parce que dama wax ni jànga wax ni Sénégal ku yaakaar ni benn nit a koy soppi da ngay nax sa bopp équipe la même bu nit ñi jaaree ku nekk ci yoonam ci élection présidentielle ñi bokkoon idée seeni programme jege bu ci kenn jàllee dina soxla ñu ci des ñëpp pour defar Sénégal loolu moom ku ko xam baax na ku ko xamul dangay nax sa bopp mooy andi lii fi xew rek donc loolu defe naa dinañ continuer waxtaan yi ak ñeneen ak ñeneen nag parce que géew gi dafa mel ni mi ngi commencé yaatu ñu bëree ngi jël seen responsabilité fi mu toll nii même ñu nekkoon feneen dem ba gis ni fii du foofa ñu ngay jël seen responsabilité loolu yëpp il faut ñu xool nu ñu koy organiser pour le bénéfice exclusif du Sénégal parce que sénégal yi mérite nañu autre chose ce peuple bi ma gis nii très fier digne ce peuple mérite autre chose ce peuple mérite beaucoup mieux suñu responsabilité la ñun ñu ñu xeex xeex boobu pour que ce peuple mun a accéder à ce milieu kon ñu ngi leen gërëm di leen sant di leen gërëm suñu hôte Bougane Gueye Dany ak ñi mu àndal ñëpp ci waa. gëm sa bopp gëm sa bopp ngi remercier. président Ousmane Sonko